الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ييغا خامتاني يي نيو اند اك نون تاي نيو واخ لين نون دا فا ام لونيو يالا جوخ موي سونو غراب يي سونو كليفا يي جانغال ني سونو ماغ ني باخ ني تي خامو نيو كو ني توپ غراب توبا بي توپ توبا بي تي غراب يي نيغي ليغي لو ري تي ادونا تي نيت كو تاي boo xoolee garabu olof njariñ bi mu am te amul effet secondaire mais nit ñi xamuñu ko dañuy faj infection ba mu wér yooyu yëpp da ngay gis da koy faj te ci boo delluwaat ci source bi gis ngeen xam ngeen lu mel ni jëm ci ay hémorroïdes garabu olof moom moo ci mën leneen loo mën a gis ci kaw suuf nit ki dafay am hépatite dangay dégg tubaab bi ñu ni mënu ko faj te yàlla laa koy def seede jaaxal naa ci ay tubaab ba ñu laaj nit ki yow ku la faj lan la mun leen kii benn africain la bu nekk Sénégal ku ñuy wax Oustaz Alioune Fall. waaw ma ne damaa ñëwoon fii noonu def benn témoignage bu ndaw rek ci Oustaz Alioune Fall dama woon benn feer boo xam ne affaire bu ma sonaloon sonal ma trop bon dem naa fu nekk man benn bés ma toog sama buntu kër daal di déglu rajo rek dégg muy wax mu wax daal di wax di wax di wax ba pare vraiment il m'a il m'a li ma wax daal dal na sama xel ak bi mu paree téléphone ne ko man daal vraiment oustaz dama amoon daal ay jàmm ay ay ay métit mu jox ma adresse bi naa fa ñëw gannaaw raay ma ñëw fa mais bi ma njëkkee ñëw accueil bi ma ni ma teroo sax moom ma njëkk moom ma njëkk moom ma njëkk defal ma ko sama feebar ñu waxtaan mais boobu ba léegi daal maa ngi am tan bu baax a baax a baax a baax. am nañ ci ay preuve yoo xam te nit ki ñëw na ba cent soixante dix millions virus bi fa la tolloon ci moom. te kooku homme de tenue la ñu dem di ko faj di ko faj di ko faj cent soixante dix millions nga yóbbu ko ba ay six mille six mille waxuma de waxuma six millions de mais six mille nga koy wàcce di ko wàcce ba ñu yéemu ci bañ bindal ko négatif wan ko ni ko feebar bi dañ sa yaram ba mu te ni prostate mooy kam te day tuur ndox muy kale wala tuur ndox nga xamante ni day génn rek te doo am arrêt yooyu yëpp fajal nañ ko ay doomi aadama ay doomi aadama ci kaw suuf te loolu yëpp ñu ngi delluwaat ci suñu cosaan suñu garabu réew yi mbokk yi nga gis ñu ni kii tey dañ ko war a opeere dafa amee kosel man yoom baaxul lan lañ koy fajee suñu garabu olof yi ba nga xamante ni danaan dem ba man yu day gaaw a dee mais day dem ba nga gis man yu commencé dund ba soxla quantité bi ñu ci soxla mu daal di koy am te lépp ñu ngi ko fajee suñu garabu olof yi. ah man de vraiment maa ngi kontaan naa trop trop moo tax sax may def témoignage témoignage bi. parce que neexulu ma joxulu ma su ko jox ma dara mais damaa ngi daal ba ma ba ma ba ma dalee ànd ak moom ba léegi daal maa ngi am tan bu baax a baax soo ko ne feebar bi dafa nekkoon à dix dix sur dix léegi mën naa wax daal léegi wér naa ba huit wala huit virgule cinq ba neuf sax wér naa ci maa ngi tant bu baax a baax moo daal may digal képp koo xam ne am nga loo xam ne daal feebar boo xam ne jaaxal na la nga jéem a am contact gu Oustaz Alioune Fall vraiment yàlla may na ko mbaax. nga gis bi ñu ne ah lii ko dal mooy ngóor dafa am problème mu faiblesse sexuelle te bu naanee garabu tubaab yi day yëg boppam mais bu bàyyee dootul yëgati boppam su demee ba sa yaram tàmm ko dootu ko mën te bu ñu delluwaatee ci garabu olof yi da ngay gis dañ lay faj faj la ba nga wér ba nga xamante ne boo naanee ak boo naanatul garab ngay yamale dootoo naanati garab te wér ga te cosaan bi moo tax nañu delluwaat ci suñu garabu réew ci suñuy cosaan. te xamni ñun ci kàttanu yalla yalla may nañu ci yu bari kañ la xew ci kaw suuf ci jamono yagul te daw ak damanjo yi weesu maam doon nañ fajj muy wër ñu nit non lañuy ñuy muy wër xam-xam bobu mu ngi fi ni ngay gisé ñu jël nit tak ko xala lolou tubab du ko génné wala nga gis nit ki am rap di genti di sey mbaa muy genti di naw mba muy genti di xex mbaa muy genti di gis ay dret wala xaj wala ay nak bu dee comme te ni mënta am doom da ngay gis muy gént ay xale ay liir loolu di ko dal loolu bu defoon téeméeri analyse junni analyse du tax mu wér te loolu dafay delluwaat ci fajum démb fajum cosaan incha allah tabaraka wa man oustaz Alioune Fall dama koy faj ba mu wér soo toppee say traitement ci kàttan yàlla subhanahu wa taala incha allahu rabbi ñu def benn témoignage si ku ñu wax oustaz Alioune di seedeloo sama borom lima may kawah, di kotek sama loxo ci alquranul karim bi di leen ne lima may wax nii mom moom lu ma dund la ak mom ci ma feebaroon ma ak mom sama guir jaar ci loxoom bu jabet balaa ngay jël garab bi demal hôpital lah la nga sa jabet fan la toll soo garab ba kholat xoolaat jabet bi bu dee tension boo naanee garab bi xam ne da ngay gis ku ñuy jox garab tension à vie non da ngay jël garab tension mu rey tension bi ci kàttanu borom bi subhanahu taala bu dee nerf sciatique nag da ngay xool nit ki mu am neer su demee ñu naan ko da ngaa dëgg liggéey boobu moom erreuru sëriñ si la fajkatu olof yi da ngaa dëgg liggéey dañ laa liggéey déedéet fekk na kooku nerf sciatique. bi ma demee hôpital ñu defal ma scanner bi. lañ ma fa defal si lañ ma wax ne ma AVC moo la dal fekk booba loxo bi tànk bi yëpp bañ na sama loxo càmmoñ bi ak sama tànku càmmoñ bi yëpp fekk na bañ nañ carrément si laa def scanner bi neer képp ko mu jàpp dangay gis sa ndigg day metti si hernie discale bi am problème soo toogal yàgg booy jug mu metti soo jugee doo mën a dox wala doo mën a taxaw lu yàgg ndigg li di metti yaa xam L2 la L3 L4 L5 ak fu mu mën doon wala disque lombaire yooyu yëpp te ñun dañ koy faj ba mu wér ci lu nekkul dara ci opéré wala dara saa ñu analyse la defal la analyse defal la écho yooyu yëpp mën na nekk ci kàttanu borom subhanahu wa yàlla may nañ ci ay ndam yu bëri bëri bëri bëri ñaata doom ñoo judd ci suñuy loxo yàlla may ñu ko ñu ngi ko koy sante moom borom bi du suñuy kàttan mënuñu dara nag amuñu pexe amuñu dara lu lépp borom bi subhanahu wa taala ci ay njariñam la ak ndimbalam ci wax ji mu wax ni wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'u wa rahmatu lil mu'minin wa la yaziddu lil zalimin illa khasara kon alquran lañu am nañ ci delu wat mu fajal ñu suñu mboolee mi yep delu wat ci alquranu yàlla bi ak sunna yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu tamit commencé defal ma ay analyse bindal ma ay analyse cela commencé jël analyse yi di def ak écho yi yenente bi sallallahu alaihi wasallam fajna sahaba bu nek te amul écho amul dara te xam-xamam bobu mu ñu ko fi bayal te delu wat ci alquran bi nga xamanteni mom mo fi nek da ngay gis nit bu ko njabar jappé ak njaboot gu mu mënti doon wala yuflihu saaxiru xaysu ata njabarkat du texe njabar dañ koy dindi nga gis ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين nga gis njabar bam tan day tàqale ay nit tàqale diggante jëkkër jabar digg nit ak palaasam yépp insha allahu rabbi alquran moo koy dindi ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam dama toppoon faju faju tubaab bi saa xool tamit sa faju nit ku ñuul ki léegi mu ne ma comme yow depuis boobu yaa ngi faju faju tubaab mënoo wér kon nañu dem si ko si ki wax su ko defee ñu jéem a tànte foofu tamit ma ne ko waaw léegi bésu samedi si la ñu ànd ñëw fii ba ñu ñëwee ma ne ah, yaay ñëw nañu de man est ce que dinaa wér mu ma ah yàlla baax na comme ki la jox numéro oustaz Alioune Fall moom moo ko faj ba mu wér kon kii war na mën a war na mën nañu tenter chance rek xëy na yàlla dina def mu faj la ba nga wér mane ko waa léegi bu ma toogalee ak moom moom oustaz Alioune Fall ma ne ko man de dama amee ñett infection waaye ñaar yi daf may teree am doom te instant yi ma dama jaaxle xaw ma nan lay def dafa rëy bu ma reetaanee mu ne ma est ce que xam nga ni infection man ñemewuma ma xolaat ko ma ko wa mu ne ma infection man ñemewuma dama kay dindi sinu mu gëna gaawé mu ne ma munoo am doom ma ko ko ma am doom mu ne ma di nga ëmb te di nga am doom ndoxum siti moom jarul ma ci débattre wala ma ci wax dara li ma ci faj mu ngi nii preuve yaa ngi nii ngeen di gis gis ngeen li lépp yàlla subhanahu wa taala def ay nit lañ ñu faj leen ci ndoxum siti ba ñu wër plek kenn mënu ci dara ci kàttanu borom bi moo tax ma ni nañ ma jox ñu wër ba sonn yow mi gëmul faju olof yow moom laa soxla yow mi nga xamante ni da ngaa wër ba sonn boo demee ba jaaxle yow rek laa soxla. yow mi gëm ñëwal yow mi gëmul ñëwal ndax nga gëm lan mooy tradipraticien lan mooy tax nga gëm karim lan mooy tax nga gëm ni faju alquran ak sunna lu wér la te day faj insha allahu taala. soo ñëwee bi isnillahi taala ñu faj la ba nga wér ci kàttan